téléspectateur u Sangomar seen émission moo dellu si ak yéen moo ko diggee fu fas teg tànkam mu teg fa bosam ak 2STV Sangomar nag course bu doy waar lañ leen indil bu daw yaram ndax dañu fàttaliku ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb te jóge fi loolu nag di lu am solo ndax dina encourager ñi fi ne tey xam ne bu ñu fi jógee kenn du leen fàtte ci kaw loolu ñu ci remercier bu baax le CNG des courses hippiques rawatina la président Cheikh Tidiane Niang ak ki nga xam ni mooy directeur des courses di Omar jaw di remercier bu baax Iba Kole Bao ràññee nañu fa ci fàttaliku bi fàttaliku Basirou Ndiaye Mbay Anta wa njabootam teewal nañ ko ki nga xam ni mooy Njaw ma ko du Jóob bu Cees fàttaliku nañ ko ki nga xamante ni si mooy góor gi alili moom itam ràññee nañ fa njabootam ki nga xam ni mooy élage Hadj Ousmane di abi njabootam ràññee nañ leen fa waaye ràññee nañ fa Mame Mary Mbaye ak Baye Siir ñu teewal fa njabootu papa ba mbay bis boobu nag nekkoon na bis boo nga xam ne bu am solo la ñu ciy félicité bu baax CNG di nuyu Seynabou Ndiaye bu Bassirou Ndiaye Mbaye Anta di nuyu Ndeye Diagne Guèye bu Alaaji Abi Dieye ñoom ñëpp dinañu leen dinañu dajeek ñoom ci biir course bi incha allah course bi nag journée de disparus la ñu wax cinq catégories mësu fee am te neexul kon bii day neex ñu egg ci biir information bu am solo muy jockey yi nga xam ne dañ leen a ajoon ay cinq dimanche ba fii ba grand prix naruñu woon a war léegi président CNG concerté wu na ak commissaire ak commission juridique bi ba baal nañu leen léegi li des ci course yi lépp dañuy war ndax fii ak grand prix chef de l'État ñu am lu ñu mën a yóbbu seeni kër teral ci seeni waay ju san hippodrome Tanor Anta Mbaxara gis nga une minute de pour les disparus disparus yi nag ñoom gis nga ndeysaan waa comité toog nañu euh, ñii nag ñooy fas yi nga xam ne ñooy jëkk a daw ñooy mool yi nga xam ne ñoo ñetti at ñoom fukk lañu ak benn gis nga ñu ngi noonu jëm ca départ ba dina nekk jóg nañu jóg nañu jóg nañu gaa yi jóg nañu dóor nañu jaraw lakk mu génn jaraw lakk moo génn la grande royale mi ngi troisième position xale bi war na ko nga war gu rafet jaraw lakk génn na mi ngi làng ak ki nga xamante ne si mooy alfaat waaye delloo nañu alfaat ci biir fas yi gaa yaa ngi def benn groupe ñu ngi noonu toll fa mool ya jóge mille six cent la ñuy daw jaraw lakk ba tey moo génn doomu kat green kadru kaldun karo Fortino ndeysaan dune de sable yaa boo ko gisee sa xel defe ni ay montagne la fekk comité bi ñoo nekk foofu ci benn liggéey bu am solo jaraw lakk génn na jaraw génn na deuxième position la faafu moo ñëw la faafu bi boo shérif si moo ko moom la grande royale ñëw na moom it lu mu wàqi jinax ju weex suul ko waaye ba tey jaraw lakk génn na doomu kat green la la faafu mi ngi deuxième position troisième position la grande royale grande royale moo nekk troisième position gaañaa ngi suspension di daw lu bari alfaat mi ngi ci biir fas yi te favori la ki nga xamante ni si mooy jaraw lakk ba tey moo génn le maire mi ngi ci biir fas yi moom it mbay jéen moo ko moom ràmbum ñey rek la ñuy def léegi nag ki nga xam ni mooy alfaat ñëw na ba tiim jaraw ñoom ñaar ñoo bokk benn écurie nag tiim na ko way jaraw doomu kat green la ki nga xamante ne si mooy alpha doomu ab et al la ab et al Danzig nosen danseur kat green kadru kaldun karo la faafu mi ngi daw lu bari nekk troisième position première position jaraw lakk bi dina metti ñoo ngi nii di tourné ci 200 mètres bi kàbbar wut si ñu ci bisu fàttaliku njaw ma kodd jóob cravache tàkk na jaraw lakk la faafu alfat jaraw lakk la faafu alfat jaraw lakk la faafu ñu ngi noonu egsi nañu premier alfat deuxième jaraw lakk troisième la faafu quatrième la grande royale loolu mooy li nga xamante ne si noonu la poulain trois ans yi dawe jinax ju weex nag ku nekk xam na ni favori la mais ren dafa ñëwee noo nga xam ni vraiment jaaxal na ñépp ki raw nag mooy Alphard Have et All mooy baayam Have et All Danzig Northern Dancer deuxième mooy jaraw lakk doomu Kat Green la Kadru Kaldun Karo Fortino Grisoroven Nasrullah ñi nga xam ni ñoo ciy topp nag ñooy groupe deux ñoom itam juróom benn fas lañu ku nekk mën na raw moroomam diggante ñàkk gore ak ki nga xam ni mooy Bompère ak ki nga xam ni mooy Koom ak ki nga xam ni mooy Arif ak ki nga xam ni mooy Amadou wañ ak ki nga xam ni mooy Mara ñu ngi noonu jëm ca départ ba ay fas lañu yoo nga xam ni ku nekk mën na raw moroomam ba tey ñu di leen commenter quatrième bi di Grand Royal moom itam Pantagruel doomu peintre célèbre la moo jur la Fafou la Grande Royale ki nga xam ni moo ko jur jóg nañu jóg nañu groupe 2 jóg nañu groupe 2 jóg nañu ñu ngi kabaru siñu ci fàttaliku basiiru Ndiaye Mbay Anta ci teewaayu njabootam wey Seynabou Ndiaye ak Xaadim Ndiaye ñoo topp seen ginnaaw mag Papa Mbay Anta Ndiaye ak seen mag Omar Diaw ñu ñëw sargal si Bassirou Ndiaye kër njaw ma koddu ki nga xam ni moo ñëw mooy momar di taaw ci njaw ma koddu ak maam ngunja ñu ànd ak seen rakk Aline Diop euh, ki nga xam ni moo génn mooy arif arif génn na arif génn na dream talk dream li far northern dancer mara moo ñëw tiim ko doomu Willis la ki nga xamante ne si moo nekk troisième position mooy bon léegi bon moo ñëw ci kaw arif Bompère ñëw na tiim Arif waaye Arif bañ na Mara mi ngi ci ligne bi lang ak ñàkk Gorée ak ki nga xamante ni si mooy Amadou Sam Wagne Amadou Sam Wagne moom it Kura Diop moo ko moom Arif génn na Papis moo ko moom Arif Dream Talk Dream to Reality Lifar Northern Dancer Northern Dancer ñerko ñerko Faros Arif génn na deuxième position bon père mais dañuy jaabal rek cravache dal na bon père dal na bon xam naa xale bi daf koy fàttali xeli waaye Mara ñëw na ci seen kaw Mara ñëw na wilis mooy baayam bon père rakki moo ko jur Mara Mamadou Diané Diop moo ko moom ba tey Arif génn na Mara jaar na ci aras bi làng ak ñàkk gore Arif Dream Talk Mara ñàkk gore seen fiñas béy ñu ngi noonu di toll fa mool yay jógee romb guy gi wut si deux bi ba tey léegi Mara génn na Mara ñëw na dé euh, wéy ab Mara génnagul ba tey Arif moo génn Arif moo génn jeeñ la jóge écrit ci sàngalkam Papis moo ko moom Arif génn na Arif Dream Talk Dream to Reality li far Northern ñëw na ci kaw Arif Mara génn na Mara génn na Willis mooy baayam Marie Madeleine mooy yaayam Marie Madeleine doomu bois rek la li cin li faar Mara génn na léegi Mamadou Diané Diop moo ko moom Mara génn na Mara dawal nañu ki nga xamante ni si dawal nañu Arif dawal nañu ñàkk gore premier mara deuxième koom troisième troisième arif quatrième ñàkk gore gis nga suñu doom yi ñu ngi noonu toog gis nañu léegi Reysa bu Moustapha Bao gis nga président Cheikh Tidiane Niang mi ngi noonu toog waaw ah way moom itam di def liggéey bu rëy rëy rëy kooku mooy famille wu docteur Babacar Diop waaye nag Ndey Jaañ ah famille yu njaw ma ko Jaañ eh, Géey itam ñëw na teewal si ki nga xam ni mooy Alaaji Abi Jéey ànd ak suñu xarit Mamadou Mbay Garmi président Cheikh Tidiane ñangook course bu rëy ndaw journée bu rëy ndax ñi ñu ko tuddee rëy ndeysaan gis nga première remise de trophée yaa ngi noonu moom Mamadou Mbaye Garmi suñu xarit moo ŋàbb noonu micro bi di wax lu rafet ci ki nga xam ni mooy Ndey Jaañ Géey ak Alaaji Abi gis nga Ndey Jaañ a ngi ñoonu tiim ko wey Mbaye Jéen mu ndaw ñëw taxaw ni leen Alaaji Abi sama maam la kon remise bi dama cee war a participer Mbaye Jéen borom taaxu kow borom fasu naaru góor mu nekk mbir mu am solo li yépp nag protocole bi gis nga sama Samake moo ko assuré waaw ah, way noonu la course hippique di tëdde ñi nag ñooy troisième course ñoom itam dix partants la ñu diggante Amza Zeyna troisième course bi euh, ki nga xamante ne si moo leen raw mooy euh, moom lañu bëgg a xam tey dina nekk mbir mu am solo diggante Amza Zeyna nous deux ñu ngi ci biir box bi Abdou Samad euh, ak ki nga xam ni mooy Maganeex ak ki nga xam ni mooy Faydu fa jóg nañu jóg nañu jóg nañu ñu ngi kàbbaru si ñu nu de génn na nu de génn na waaye lu mu wàqi rasuul suul ko nu de écrit Omar Bawa Junior ki nga xam ni moo génn mooy rasuul rasuul moo génn mais faydu mi ngi daw lu bari nekk ci seen biir te doomu belle ak soleil de minuit moom itam écurie Moustapha Baawo la juddoo waaye papis ñaa moo ko moom wey léegi nag ki nga xam ne moo ñëw d'office mooy nous deux le fis de Garouza Garouza Garouda Danhill Danseur Danhill Danseur Danhill Danhill Danzig Danzig Northern Danseur nous deux Omar Bawo Junior moo ko moom a ah, nena na nous deux et la fafu ñu ngi nële toll ca guy ga wut si deux cent bi nous deux génn na doomu Garouza la ki nga xamante ne si moo nekk deuxième position lu nous waxi mu ko kooku mooy Rasoul troisième position ki fa nekk cravache yaa ngi tàkk. mel ni rasul moo daw ci ligne bi lang ak faydu faydu ñëw na faydu ñëw na rakku rakku Betty Bawo la premier nous deux deuxième rasoul troisième faydu quatrième ami collé bu Mamadou Diané Diop noonu la fas yi dawee nous deux Garouza Garouda ki nga xam ni mooy deuxième mooy rasoul c'est le fier descendant de Lasmango lasmango carleon carleon nijinski nijinski northern dancer ndey jaan jéye ngoog john Coates Sadderswell northern dancer gis nga suñu dooma ngoog Reysa Lang ak Omar Bawo junior kooku mooy Seynabou Ndiaye bu Basiru Ndiaye Mbay Anta nee naa leen sànq teew na fi course hippique nag nii rek lay tëddee papa Mbaye Anta Ndiaye ngoog ndeysaan gunge ay rakkam mu nekk mbir mu am solo la journée des disparus bu bis la bu kenn dul fàtte. Euh, léegi nag ñii ñooy euh, ñii ñooy ñi nga xam ni ñooy euh, quatrième course quatrième course bi ñoom itam treize partants la ñu. nekk na course bu nara nara nara nara rëy ñi nga xamante ni si ñoo koy daw mooy les poulains de trois ans les poulains de trois ans dugg nañ ci box yi fukk ak ñett lañu ndaw lu rëy jóg nañu jóg nañu mbay ngiraan yëkkati na drapeau bu verte bi loolu mooy départ bi baax na box yaa ngi noonu bravo le président du CNG bravo le le directeur des courses mais bravo Iba Collé Bao président di CRG de Louga ñuy ràññee ci kaw itam suñu xarit Xaasim Diop wéyi poulain trois ans yaa ngoogu ki nga xam ni moo génn mooy euh, jàppul bàyyi jàppul bayi moo génn jàppul bàyyi moo génn non lii groupe 3 la groupe groupe 3 bébé xadi moo génn bébé xadi moo génn bébé xadi moo génn c'est le groupe 3 groupe 3 bébé xadi moo génn waaye bébé xadi je crois bien c'est bébé xadi 13 partants lañu Alvarez mi ngi ci seen biir nekk na lu rëy rëy rëy way groupe 3 la way 13 partants bébé xadi moo génn euh, Sibigui mi ngi daw lu bari moom itam langa ki nga xamante ne si mooy alfaat ak alwalit alwalit ki ko moom mooy euh, Moustapha Hachem Alfarez la général Abdoulaye Fall moo ko moom waaye bébé xadi ba tey moo génn Omar Bawo Junior moo ko moom ki nga xam ni moo làng ak moom mooy Sibigi bébé sibi gi xàcc la Alfaat ñëw na Alfaat ñëw na ci kaw bébé xadi ki nga xam ni moo ñëw du Alfaat mais c'est jàppul bàyyi jàppul bàyyi moo ñëw ci kaw bébé xadi jàppul bàyyi ñëw na alwalit mi ngi troisième position wey alwalit bébé xadi alfaat bébé xadi alwalit ndaw lu nara metti alfaat bébé xadi alwalit ñu ngi nii kàbbarul si ñu bu ñu ñëwee dañuy téye cravache yaa ngi tàkk alwalit alwalit ñëw na alwalit ñëw na ci seen kaw alwalit ci aras bi alfaat ci ligne bi alwalit génn na premier alwalit bu Moustapha Hachem deuxième Bébé Khady bu Omar Bawa Junior troisième jàppul bàyyi bu professeur Sakhir Thiam quatrième alfarez bu Basirou Fall alwalit ak alfaat ñoo euh, tegaloo wuñu kii euh, moo jël troisième kii moo jël premier troisième course bi Adja Cuuc laa seen noonu pam ñi nga war ko jóg nañu jóg nañu ñu ngi kàbbaruut si ñu cravache yaa ngi tàkk ku nekk bëgg a jël teet waaye Khadija génn na Khadija génn na ñu dawal Betty Bao mu ñëw ci kawam <laughs> ñoom ñaar fu ñu dajee day neex Khadija Betty Bao Khadija 4 Green Betty Bao soleil de minuit 4 Green génn na léegi Betty Bao imposé na ko rapidité am génn delloo nañu Khadija Khadija benn jébbu ginnaaw képp la am ndeysaan kasaag yi moo différencier ñaari fas yi waaye ñoom ñépp ay jàkkeer lañu Khadija génn na Khadija 4 Green 4 Fortino aux côtés de sa mère yaayam doomu Démondor la machiavélienne Mr Prospector raise a native native dancer Khadija génn na lu mu wàqit Betty Bao suul ko Betty Bao soleil de minuit gars ci des nag ñu ngi def benn groupe rek topp ci ginnaaw mel ni Khadija ak Betty Bao dañoo teg seeni birdon pour xaar fas yi ñu ñëw ñu ànd ak ñoom jàpp ràmbum ñey njiitum golo kenn demul kenn dikkul xadija génn na afsa mi ngi ci afsa ñëw na afsa ñëw na làng murit ñoo waaye ba tey egsi wuñu ajaa cooj ñëw na ajaa cooj ñëw na le plus dangereux des chevaux professeur Omar Bao ñëw na professeur Bao ñëw na mais ba tey ki nga xam ni moo génn léegi ki nga xam ni moo génn c'est bien, c'est bien, c'est bien à euh, c'est bien le professeur Bao benn jébbu ginnaaw képp benn jébbu ginnaaw képp sëriñ bi ñëw na sëriñ bi ñëw na cinquième position malgré sa taille dafa am jom sëriñ bi ñëw na Amady Diakho moo ko war ñëw na léegi troisième position wala quatrième position ba tey ki nga xamante ni si moo génn mooy Afsa Afsa seen finance bay mooy baayam seen finance bay c'est le fils de Lur Lur Danzig Danzig Nozen danseur Afsa génn na dawal nañu professeur Bao dawal nañu professeur Bao cravache yaa ngi tàkk ñoom ñaar ci 200 mètres bi dina metti professeur Bao ñëw na professeur Bao av et al Danzig Northern Dancer ah oui borom turandoowu màgg waa ngoog premier professeur Bao deuxième mooy ki nga xamante ni si mooy Afsa troisième Serigne bi quatrième Murit Ñan oh là là bi am na solo professeur Bao moo raw deuxième Afsa troisième Serigne bi professeur Bao. Av et al Afsa Seen sëriñ bi uh, Love and Lost. mbokku yi Sangomar mi ngi tàggoo ñuy remercier bu baax Santi seen ci li nga xamante ne si mooy image yi. di remercier képp koo nga xam ni yaa ngi bége Sangomar suñu xarit Mame Mor Gueye ci gare routière bu Thiès ñu ngi koy nuyu di ko def jàbb loxo di nuyu Ibrahima Seck njare wàqee amateur course yu mag lañu bëgg course fàttewuñu ma kan maar ñu ngi leen di tàggu ba jëmmi jamono fii la Sangomar di yem ak yéen tey dimanche bii ñu jëm nag ñu ngi jëm ci li nga xam ni mooy Grand Prix Premier ministre bu ñu jógee grand prix première ministre dañu dem grand prix première dame ca luga ñaari dimanche yu am solo ngoog programme yaa ngi ci kanam lépp dinañu leen ko leeral di leen xamal ni Fatick mi ngi xaar monde turfiste bi ci journée bu am solo ak le directeur des courses Omar Diaw Omar Diaw nag ku ko tudd di nga tudd Mbagnick Ndiaye ministre de sport ndax ñoom ñaar ñoo bokk seen siin ànd fa itam di liggéeyal ki nga xam ni mooy président de la république kon ñu di leen ñaanal ca kanam a kanam a ngeen jëf ba beneen yoon incha allah